ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yu 2STV yi ne ci biir réew mi bitim réew ak fu ngeen mën a ne ci àdduna macha allah dend ak seen télévision bi di 2STV waaye dend ak seen rajo origine fm 88 point 4 del siwaat nañu yéen seen jotaayu daara ji ñu tuddee yoon wi seen mbokk daara Abdoulahi Guèye di yen ko présenté waaye dalal mbokk daara daaraam Abdoulahi Saïd Guèye macha allah kon nag tey ñaari Abdoulahi ñoo jàkkaarloo Abdoulahi Saïd macha allah di doomi daara doy na sëkk bu nekk sa waajur ñu ne Alxaaji Moustapha Guèye ñu xam ni doomi daara nga kenn ku ne xam ni doon juddoo ci daara rek ba am na solo waaye doon ndongo daara it fexe ba li nga war a xam nga xam ko dafa am solo macha allah mu def ci ay kàttanam bii ci biir réew mi ñu xam ko fi waaye ci bitim réew ñu xam ko ràññee ko bu baax ca itali ci taxawaay yu am solo yi muy def liggéey yu mag ya mu fay liggéeyee l'islam macha allah ca daara ja ca programme ya macha allahu ak taxawi taxawu sénégalais yi surtout ak africains yi nekk foofu yëpp macha allahu kooku bu ñu ko dalalee dañuy am sharaf dañuy am mbégte ci di jàkkaarloo ak moom waxtaan ak moom lu ñu war a waxtaanee nag macha allahu dañ koy def jotaayu daara rek ñu ak moom waxtaanee crise des valeurs macha allahu xam ngeen ni mbokk yi li yàqu bari na lool li ñu war a joyantiwaat bari na lool kon war na ñun waa daara ji ñu waxtaanee ko. tegaat nit ñi ci axe ba fi ñu war a tegu ñu tegu fa ci loolu laa ko dalalee di ko bàyyi mu nuyoo waaye haj abdallah soo nuyoo ba pare dama lay dugalaale laaj bi nga xam ne moom ngay booleeg nuyoo bi dama gis sa soppe bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis ni innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq moom ni koy waxee rek mooy mu ne dañu ma ni ngir ma mottali valeurs yi nga xamante ni dafa war a am ci nit ñi te am yu des moom laa ñëwoon mottali ko kon déggee nañ ci ni moom bi mu fiy jógee mat na mm-hmm. waaye dañu gisaat ni léegi dafa manqué kon noo déggee xadis boobu ak jamono ndax loolu waroon na am ba pare ñuy waxtaane crise des valeurs eh, jërëjëf xaaja euh, abdallah eh, xam naa damay kontaan lool ndax euh, li yonent bi wax ne mm-hmm. eh, xayrul asmaa yi ma ubira tur yi bi ci gën mm-hmm. mooy bi commencé abda abdullahi abdul ahad abdul samad abdul yooyu ñu si génn kon ñaari Abdallah bi ñu bokkee plateau loolu dafa may neex loolu ngay sama doomu baay di sama kilifa sama magu daara mm-hmm. loolu sant yàlla la mm-hmm. euh, mais di la bëggee mm-hmm. lool ma am chéref nag bu toll ni bokk ak yow plateau ndax nit boo ko yàggee bëggee yàgg ko teewlu euh, maa ngi wax soxna Mbaye ne ko euh, sëriñ bi day bañ seetaan nee lu reetaanu la ñuy seetaan waaye émission buy jàngalee dañ koy teewlu kon ñu yàgg laa teewlu lool Eh, yàgg bëgg di bokk jotaay ak yéen yi nga xam ne ñu magu daara. Mm-hmm. kon tey bu ko yàlla dogalee loolu eh, chéref la. Mm-hmm. ci ci ñun. ñu ñaan yàlla guddal fan bi lool. may la wér yàggal la fi ndax eh, doyoon na rek mm-hmm. xam famille bi nga bokk. bu la neexoon ngay kaalu toog di jël addiya. waaye defuloo ko li maam yi ak baay yaroon la. yaa ngi ci voie ñu ngi ñaan yàlla mu saxal la ci ñu bëree bëri gën di fi nekk di jub ci ci sa euh, ci sa barke ci barke alayhi salaatu wassalaam amiin cheikh bi crise des valeurs mhm. gàcce la mhm. waaw mhm. crise des valeurs bu ko waxee rek jullit bi moom dafa war a nekk gàcce ci moom ndax mooy kat puso bi mujjee na ci sama loxo réer loolu mooy crise des valeurs parce yàlla dafa préparé addinaam bi mm-hmm. ca malaaka ya mu jékki bind doomi aadama mm-hmm. jékki ne kii mooy sama xalifa mm-hmm. moo xalifa boobu ñu yàlla def ci kaw suuf dañoo wàcc yoon bi moo tax crise des valeurs am yàlla ne waaw amul problème de boo leen ni wàcc yoon bi dinaa leen andi ñu leen di tegaat ci raay bi loolu moo andi al anbiya wal mursalun yàlla di andi mu commencé ko ci yonent yàlla aadama mu ne ko waaye nag li ngay tedd yépp nag yow aadama yaa ngi préparé na ngën gi mbindeef suñu soppe boobu kooku di sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kooku nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dafa wax ne mm-hmm. su ma xamutoon dara mm-hmm. jànguma dara dinaa jël daxaa teg ko jël xalima di ci capp ut sama kayit gi lu weex di rëdd ñu ne ma lay def ma ne damay tàgg yonent bi sallallahu alayhi kooku lañ doon préparé kooku nag bi mu ñëwee dafa ne kaay leen benn drapeau laa yëkkati drapeau bu ñu ne ko mooy lan yow sang bi mu ne yàlla dafa maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi mhm. xadis bu wér la ndax mu ngi ci Abu Daawuda mhm. euh, bi mu ñëwee nag ba mottali ko ba lépp mat mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum mu ne diina jii day amatul luñ ciy yokk amatul luñ ciy wàññi mhm. man na sëkk gars yi ndax dégg ngeen li ma wax ñu ne ko waaw mu ne kii fi nekkul tey fii ci arafa na ko jottali kii fi ki ka muy tasanteel ëllëg ba yow yowmal xiyaamati mm-hmm. mu ne dina bëri koo xamee ne dafa mel ni man ak yow mm-hmm. ak suñuy wayjur mm-hmm. fekkeewul jamono jooju waaye ni mu ko mën a nettalee ña ko fekkee woon sax mënuñ ko nettalee ndax loolu lu ko war a mooy njàngu mag ñi dëgg la ku mel ni mam Cheikh Ahmad bàmba boo jaaree ci daaraam di nga dégg lu gaa yi déggutoon dëgg ku mel ni Cheikh Sidi Alhaji Malick boo jaaree ci daaraam di nga dégg lu gaa yi déggutoon moo tax Baye Niass waxoon waaje ne ko mm-hmm. man li ci suuf mbind mi lay jàngale jàngalewul mbind mi waaye la ci suuf mbind ma mm-hmm. parce que bu dee baati arab yi rek ñëpp xam nañ ko mm-hmm. dama wax benn waaye ñu waxtaan mu yaa mun a mbindu mag ñi daal moom mooy loolu man a ko mooy loolu <laughs> loolu mos ne ma oustaz sama mooy loolu bi ak sama sa mu dafa wute ma ah man moom fi ma waxee mooy loolu mooy gisuma lu ko gën a kawe ndax seen dund gi yëpp dañ koo def ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. te amul lu gën a kawe loolu mhm. ma ne ko Maulana Cheikh Ibrahim dafa wax ne mu ne Kaab ak Hassan mu ne ñoom day ñoo ma fi jiitu ci ay at mhm. di tagg yonent bi waaye li ma wérti wër mooy man maa leen raw ci yonent bi mag ñu mel noonu boo leen amee kenn du ñoom moo tax ñun ñu gën a dégg woote yonent bi muy Eh, yàlla daf maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi mhm. yonent bi tënk ko nag ci ci ci lu gàtt mhm. mu ne ak akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqan mhm. mu ne yéen jullit yi ki nga xamee ne moo gën a am ngëm yàlla gu mat sëkk ñu ne ko ngëm yàlla fu muy nekk mu ne du ci loxo yi du ci bopp bi du ci tànk bi ci yaram bi yëpp lay nekk waaye li koy commandé mooy xol bi ndax ngëm yàlla bu nekkee ci loxo tey du gis amuloo dépense te joxuma la duma ko garder ci kër gi ngëm yàlla bu nekkee ci tànk yi xol bi diriger ko mooy waral tey kii di waa kër maam Cheikh Ahmad Bamba xewle te yëgaluñ la ko nga taal sa oto dem fa parce que yonent bi ngay wuy waral aussi waa kër maam Sidi Alhaji xewle nga taal sa oto dem fa ndax yonent bi lañ tàntal loolu mooy ngëm yàlla bu nekk ci tànk yi ngëm yàlla bu eggee nag ba ci làmmiñ bi loolu mooy waral doo jëw doo saaga doo wax lu ñaaw doo ŋàññi doomi adama te damay faral di wax ne nañ leen dem ci page 3 laxdar yi mhm. dafay wax ni mu ne ŋàññi doomi aadama waxal ko lu bon seedeel ko lu bon nit ki sëy ak wajuram fanweeri yoon mhm. moo gën a oyof bàkkaar waxal nit lu bon mhm. fan nañ toll ci loolu tey réseaux sociaux yi yàq doomi aadama Euh, am naa doole wan la ko loolu mooy crise des loolu nag mooy gàcce ci ab jullit bu ñu waxoo ne julli dafa war a dëggu léegi mu nekk safaan di kàcc gàcce la war a nekk ci yow yonent bi mu ne euh, diine yi ñu fi jiitu yépp ku nekk am na benn symbole boo xamee ne moom lañ koy ràññee mm-hmm. mu ne waaye symbolu sama xeet muy jullit ñi ñi gëm alquran seen symbole mooy lan gaa yi na tekk mu ne mooy lan ñu ne tekk ñu ne ko xamuñ ko yow mi yàlla yónni wax li ko mu ne mooy kersa fan la tey jullit toll ci kersa te nit gis nga bu amul kersa yonent bi nee na iza lam tastahi fasna ma shita nit ki bu demee ba amatul kersa su ko neexee saaga su ko neexee turian damay mës a waxtaan ak benn waaye ma ko luy sa métier mën na ma business <laughs> ma ne ko ban fan fan la sa cantine nekk mu ne ma non du business yooyu de ma ne ko business bu amul cantine <laughs> ah mu ngi may xaw a jaaxale mu ne non oustaz business ma ne ko loolu mooy dóor marto <laughs> loolu mooy turian loolu mooy caaxaan loolu mooy ut alal bu daganut te léegi fu ñu toll ci loolu sama classe gi oustaz yu ndaw yëpp ay business man lañ di dóor martu nit ñi rek eh, eh, da ngay wax ak ñoom mu ne dama lay listi xaaral eh, gis naa lii ak lii ak lii ak lii ma koy def te lañ lay wax ne moo koy def ñoom rek ñoo ko mën a def <laughs> lu mooy dóor marto nit boo ko digalee sarax ginaar ne bàyyi ko mu sarax ginaar gi suñ benn dëkkandoo benn waaye da ko mës a romb ab sëriñ la mu ne ko démb de gis naa nga war a saraxe xar xam naa boo ma ko joxee rek ma sarax baa bi na ko jëf dinaa ko jënd ji léegi togg ko famille bi lekk ko <laughs> mu xaw a mer man ko ah, jarul mer di la sarax xar la moom gis na ne moom gis na ne njabootam ñoo ci gën a yey pour lekk ko mm-hmm. mu dem jëndi ko rey ko ñoo jox ko njabootam ñu lekk ko en tout cas daal al oustaz mm-hmm. euh, crise des mm-hmm. soo koy résumé ci lu gàtt mooy gàcce jullit waaw gàcce jullit mooy crise des valeurs macha allah mbokk yi defe naa ni suñu mbokk Haj Abdallah Saïd ni mu laytaayee jotaay bi wane na ni fas na yéene waxtaan nag loolu lu am solo la junj na yu bari waaye lu daw yaram li mu wax mooy bu ñu ne crise des valeurs ci jullit gàcce la ndax ki ñu yónni woon comme ni nga ko waxee boroomam wax ko wax jure jooju al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diinan l'islam doon lu mat sëkk ba pare mhm. nga ne ci dem ba dundaat ba naan crise des valeurs loolu gàcce la léegi nag li ma bëgg ñu waxtaane ko mooy di jël ci valeurs yi par benn di ci waxtaan. Mm-hmm. parce que problème la problème la valeur boo jël rek léegi natt ko ci ab jullit yenn saa yi da ngay gis ni du du ko feese. du mm-hmm. fees place place boobu. li may njëkkee mooy ragal yàlla xam nga comme ni nga ko junjee bu nekkee ci yow day feeñ ci sa fépp. Mm-hmm. bala maa ñëw ci biir réew mi yow yaa ngi ci bitim réew gis nga na ay jullitu sénégalais nekk. ñoom boo doon natt seeni valeur par rapport ak nañuy dunde foofa loo ñuy indi euh, lu daw yaram lu daw yaram ndax des fois da nga wax nit mu wóor na la ne bu nekkoon Sénégal ci lay gën a jube que fa nekk ndax base bi nit war a am pour mën a dem muy taqwa da nga gis na koo manqué bitim réew maa ngi koy wax lu bari mm-hmm. fa la sëy yi tas ëppee léegi ñaar dafay nekk li koy waral wala mu nga nekk quatre vingt dix pour cent li koy waral mooy li ñuy wax léegi gàcce jullit crise des valeurs jigéen ñu muuree ko fii mu sey fii xëy bis borom këramam jàpp ne war naa mën a nekk ak soxnaam mu dang dangi fu ne def regroupement familial indi ko mu ne ko dooma ëppale yow da li ko yóbbu yow dañ laa yóbbu woon pour nga sëyi mhm. nga egsi ne déedéet man entreprise yi laay wari yi crise des valeurs commencé na loolu mooy gàcce mooy bañ lay yeb dañ la waxoon ne melal ni sa ndey mhm. melal ni sa maam nga ne déedéet ñoom lañ nekkoon dañoo retard mhm. man léegi je une femme moderne gàcce ñëw na gis waxtu woo déggee moo moderne ci luñ ko wax rek gàcce la moderne parce que lislaam amul luñ ci moderniser amul l'islaamu démb ak l'islaamu tey amul alquran yi démb ak alquran yi tey amul wa radaytu lakumul islaama diina mhm. aaya bi dafa bàyyiwul dara yàlla mu ne gërëm naa loo leen l'islaam muy seen diine keneen ku jàpp beneen diine du ma la nangul wa man yabtaghi ghayra islaama diinan falan yuqbala minhu kenn du ko nangul mhm. Euh, léegi nga gis ne kon euh, base bi jullit war am muy taqwa dafa xaw a néew bitim réew mm-hmm. gis koo xamee ne julli day jot mu war a julli day nekk ci li muy nekk rek ci dawante ci jaay ceinture bi jaay poset bi nekk ci yu kenn xamul ba wàcc ngoon war ko enguro mm-hmm. suba tusuba takusaan timis gaye pare dem ci lal bi mm-hmm. ni mu ko war a jooxee sax du ko ko jooxee loolu crise des valeurs la te bu nekkoon fii Sénégal tey nga nekk marché Sandaga boo dul ab jullit bu dëggu sax buñ ne allahu akbar ci jumaa ji wa izaa nudiya ila salaati min yawmil jumaa yi bu ñu wootee rek kon am na distance bu fa nekk mooy dox jëm ca nga gis euh, sëñ Seck jàpp sëriñ Gueye jàpp sëriñ Diop jàpp sëriñ Ndiaye force mu dem jàpp ci mhm. parce que ñii ñoo koy poussé pour mu dem mhm. waaye fee boo nekk ci réew moo xamee ne ndey du la tere bàyyi du la tere mag du la tere kenn du la tere donte kenn sax da ngaa dëkk ak ñoom crise des valeurs dafa yomb moo tax Europe euh, mu yomb fa dama koy wax euh, daara ji nga xam ne dama ko fa yore gis xale boo xamee ne bu ëbbee téeram dimanche ci yow jàng bu ko tijjiwaatee dimanche ba dellu si <laughs> loolu musiba la ndax niñ ko war a préparer ci école italienne bi mm-hmm. ba bu ñibbisee di réviser noonu lañ ko war a préparer ci daara ji nga xam ne dimanche ba dimanche safay dem su ñibbisee réviser waaye nag di nga fa gis ñu jàmbaare ñoo xamee ne xale bi fa la juddoo fa la màggee ci de passage rek maa ngi ndokkeel Serigne Saliou Ndiaye euh, nekk jàngalekat bi ci Brescia tariloon na fa xale alxuraan hmm? loolu c'est à saluer ah oui ah oui ah <laughs> parce que li tax mu war a doon lu ñu bari bàyyi xel dama mas a def benn émission boo xam ne bi maa ngi ko defoon Anvers ci Belgique. Mhm. Euh, ma gis doomi jullit yi foofu. tegoon naa ko sax fii ci 2 di tari alquran di jàng ahadis mhm. di jàng salawaatu ala nabi yu am solo di ko wax. Mhm. man leen du du li ñuy def moom ma yéem ndax xale bu ñu jàngal nga mën a jàng lii. mais fi ñu ko jànge moo yéeme. ndax wóor na ma ne ki leen jàngal ba ñu yegg fii. ñemewul woon a jël yar teg ko seen loxo gëdd sax sax xalaatu ko mhm. waaw gëdd sax xalaatu ko man xal yi may jàng ñemewul ne sax wax wax bu naqari mhm. kay da ngay mocc a neexal ak <laughs> man dama jël sax benn système man sama jàngale mhm. mooy bu ñu defee une heure def benn pause quinze minutes forêt forêt <laughs> pare continue continué waat pour mooy am lu mën a dugg seen <laughs> bopp voilà parce que am na yenn wax yi ñemewoo leen ko wax parce que bu ñu du coow li du nekk ci yow mais coow li dafay nekk ci seeni waajur parce que dañuy dem ci école bi wax ñi leen di jàngal dénoncé leen dañ may yóbbu may jàngi alquran te neexuma mm-hmm. te déjà dañ ñoom dañ lay gëmloo ne xale waroo ko def lu ko neexul mm-hmm. ma di waaw xale Europe ñun de dañu doon teg lu ñu mm-hmm. waaw eh, dañ daa jàngi arab wàcc midi midi et demi ñu añ midi trente cinq quarante maximum jóg nga bool bi jël say téere dem jàngi ji majlis mhm. deux heures et ngeen ñëw ñaar mooy sangu ñaari dajale téere ngeen dem jàngi jiwaat nga ci ñëw si kër gi sëriñ bi mu ne la rawagoo ma li nga jàngoon ci suba ak léegi tari ko mhm. moom xàmmewul mathématique xàmmewul géographie xàmme lépp da ko war a tari mhm. nee na jàng moom day mokk rek yooyu buñ la ci yaree boo demee fee da ngay gis différence bi da gis différence bi mais crise des valeurs en Europe moom euh, ñàkk base la ñàkk base damay faral di wax sama yenn jotaay yi ma ne kii baaxoon fii ñu yar ko ci base yu dëgër su eggee Europe daf koy gën a jëmbat waaye kii amutoon fii éducation de base boo yeggee rek mu feeñ mu feggee rek mu feeñ oustaz macha allah léegi yow nan nga gisee xam nga yàlla dafa wax ci diggante jur ak doom mhm. wa qada rabbuka allaa taabudu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan kon mhm. loolu mooy li jaadu te war mhm. foofu nan nga gisee xale yi seen ak seen ba tey crise des valeurs <laughs> waaw gàcce ba tey parce que bu ñu demee ba jur amatul droit corriger doomam addunaa ngi yàqu suñ demee ba xale bu jigéen six ci ngoon mu sangu gàddu saagam yaay ji naan ko bul guddee problème am na mm-hmm. parce que kooku fajar lay dir si waat ci kër gi su egsee fajar joxe dix mille lu dépense su kër gi dem tëdd ji nelaw ñu naan bu leen bu leen yëngatu ndax seen tante wala seen yaay dafay nelaw y a un problème buñ demee ba léegi xale bu jigéen rusatul sol lu gàtt di romb baayam ak ndeyam y a un problème man ñun eh, yàgguñu trop waaye bi ñuy gën a nekk xale ki lay jàngal ci ecole bi rek ñeme woo tasante ak moom samedi ak dimanche bi nga xam ne yaa ko moomal sa bopp mm-hmm. man oustaz yi jàngal ku ma ci seen daw dugg sama ron la lu yaay mm-hmm. parce que jàpp naa ne dee naa mm-hmm. mag ñi nga dëkkal ci koñ bi dañ lay corriger comme nii la sa baay ak sa ndey di corriger mm-hmm. léegi rombul sama doom nga dóor ko duma waxtaan ak yow police mooy ñëw wax ak yow plainte ngay dem def directement ce qui veut léegi nit ñi mënatuñoo yar seeni doom luy loolu mooy yow tey sa doomu mbokk innamal mu'minuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mooy dëgg yàlla mu ne yéen jullit ñëpp ay mbokk ngeen rafetal leen yéwénal leen mbokk googu yéwénal boobu daf cee bokk xaqul jaari te xaqul jaari da cee bokk doom ji def lu mu waru def dëkkandoo baayam nekk fi war koo corriger ñemeetu ko da romb rek sëgg te jàll foofu lañ tollu tey xale bu jigéen bi wala xale bu góor bi tant mu ngi mën na def dara ndeyam ak baayam bant bu gudd lañ koy laalee mm-hmm. ñu toll tey ci senegal goo xamee ne wala Afrique boo xamee ne wala àddina boo xamee ne ku tekki ñu jox la cër ku tekkiwul duñ la jox cër tekki boobu nag du diine bu njëkk nit dañ naan la boo tariwul baqara ba naasi duñ la may soxna mm-hmm. sama nijaay daal na ko baqara ba naasi mu taxaw di ko tari guddi ba bës set ñu door ko takkal soxna mm-hmm. bu ci yàqoon tuuti ñu ne ko demal ba nga mën ko léegi dangay ngay ñëw ñu naan mu jógee lu muy liggéey loolu mooy crise des valeurs damay mës a waxtaan ak kenn mu ne man de dama wax sama doom yi ne nañ na seen bët yi rëy subhanallah man ko yàq nga xale yi di mun mhm. ma ah euh, xam nga léegi kat kul garab bu la lu dina mën a may ker man ne ko waaw mais ci diine ci valeur ci jikko yu rafet hmm. man ne ko Seydina Ali ibn Abi Talib mhm. moo gënoon a ñàkk ci saxaaba yi mhm. kan lañ ko jox doomi ngën gi mindeef Seydina Fatima radiyallahu anha mhm. moom lañ ko jox mais bu yonent bi doom xool dara du ko jox déedéet déedéet ne ko bët bu rëy ci jikko lañ koy xool mhm. mais bët bu rëy du ci alal mhm. léegi foofu lañ foofu la àddina bi toll seetatuñ da ngay da ngay nekk ci kàcc amas tuut sa kàcc gi mujj nekk dëgg da ngay nekk nit ku ñàkk kersa au lieu nit ñi jéem laa wan na yow nit ku ñàkk kersa nga léegi ñoom ñooy sëgg bët yi ci yow foofu lañ toll sëriñ bi dafa mës wax mu ne Sénégal bu ñu waxee pays musulman da koy xaw a jaaxal ndax réew moo xamee ne jaay fi sàngara moo gën a dox jaay fi boisson desitu sàngara ak desitu drogue doo ko dégg mukk dëgg la waaye boisson boutique boo dem kees yaa ngi rangaloo mënul fexe ba jaay ko mm-hmm. yaa am problème waxoon naa ko ay mbokk ca fa ma dëkk ci Thiès fekk nii yenn saa yi nga jékki-jékki rek ñu ubbi benn baar clandestin la wala lu mu mën a doon ala kulli. Mhm. Euh, xëy na sax man na ba ñu doon nii nañ jóg dem ca police dem fële nañ ko tëj lii day yàq suñuy doom man buñ ko masaa dama li man duma ci bokk. Mhm. dama bokk ci ñuy dox lool. parce que man dama jàpp ni jaaykat boo gis muy jaay bénéfice lay wut. Mhm. ak njaay mu jar. mais bu fekkente ni quatre-vingt-dix-sept pour cent comme ni ñu koy waxee ay musulmans lañ kon kii ab trois pour cent boo xamante ni am na ca biir trois pour cent yi ñoo xam ne sax du ñu utiliser sangara si mhm. ña ca des a kus néew muy ñu gëmul dara ak ñooña xanaa mënuñu fee weesu ay deux pour cent kon kii jaay sangara si du deux pour cent boobu koy tax a jaay mhm. kon buy jaay ba pare muy jar c'est parce que 97 pour cent bi am na ca ñu dëng ñu wàcc yoon ñoo xamante ni ñu ngi. ñu ngi ci mm-hmm. mbiram. xàqan kon loolu di lu doy waar lu ñu war a jàngat yal na ci yàlla musal. Mm-hmm. léegi ba léegi su ma ñëwee ci valeurs yi nga xamante ni ñàkk nañ ko am na boo junj sànq mu am solo lool mooy kersa. Mm-hmm. dafa mas a am yonent bi neen isaa sax lam tastaxi fasna ma chita soo amul kersa bàyyi lépp ñun waxuma la sax jànq ji waxuma la ndaw ñi. waaye mag ñi sax ci réew mi dañoo amoon kersa. Mhm. waaye léegi ku la gën ndaw gën la ñàkk kersa valeur boobu deñ na loolu noo ko gisee. waaw eh, ak lu ko eh, waral pour yow. Eh, li ko waral mooy ñàkk jom mhm. <laughs> ñàkk jom rek moo ko mhm. waral parce que yonent bi bu dee ne jaar leen fii nga bañ faa jaar mooy ñàkk jom. ndax yàlla bu ne man kii li ma bind yëpp moo ma ci gënal. xanaa loo ñàkk xam-xam gëddu yonent bi nekk ab sénégalais. Mhm. am na loo ci dégg. Mhm. ndax suñ mag ñoom jublu ñoon fenn fudul yonent bi. sallallahu mooy seen référence mooy seeni nopp mooy seeni bakkan mooy seen i lépp bàyyi safa ne huwa lii wa sharabi. wallaay ndeysaan. cest mag ñooñu boo leen amee war nga xam lan mooy kersa. Mhm. kersa nag dafa am ñetti xaaj. kersa diggante jaam bi ak. boromam mhm. kersa diggante jaam bi ak sallallahu alayhi wa sallam mhm. kersa diggante jaam bi ak moromi jaamam wala ak boppam mhm. ñun nag dañoo réer ci biir kersa googu kersa diggante nit ki ak boromam mooy fexe ba lim la sant nga nekk ca lim la tere nga bàyyi ko te yàlla méttiwut de dafa ne li ma la sant loo ci mën a def ci li ma la tere nag fexeel bàyyi yëpp parce que benn amulul la ci njëriñ. sëriñ bi daf ñuy nettali mu ne euh, dafa mësa tawat ñu jox ko benn garab boo xamee ne dafa am alcool mu ne du ko jël. waa ji na ko docteur bi ne ko garab boo gis ñu def ci alcool rek am na bu ni mel nekk ci wet gi te amul alcool. ñun nag réew jullit moom dañuy puus bële rek. indi bi ñuy nangu dindi bële. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne lu xaraam yàlla defu ko. muy faj sama xeex waaw saafara si nekku ci mais pour pourquoi mm-hmm. quoi mooy ñun ñoo wàcc yoon wi nga xamee ne moom la ñu tegoon kon kersa diggante nit ki ak boromam daf war a des mm-hmm. boo nooyee mu yegg yàlla la neex mm-hmm. soo xoolee gis yàlla la neex la preuve tey bu ñu fayoon làmp yi ñu xulli suñuy bët yi duñ gis dara kon yàlla mi la may basiira boobu sant ko yàlla mii la may nga am appareil ci sa nopp boo xamee ne kenn installé wu ko te lu waaye wax nga dégg ko sant ko yàlla mi la may boo yeewoo nga mën a jóg sant ko kon jóg-jóg yooyu yàlla defal la boo amee kersa digganteem ak moom xam nga li la war ak li la warul kersa sa diggante ak yonent bi xanaa nit ku ne loo gàtt-gàtt xam-xam xam nga ne nit ki bu duggee ci biir bàmmeel dañ ko andil portele sallallahu alayhi wa sallam ne ko kii kan la boo ñàkkoon bu nit ki ñàkkee kersa nag diggante bi ak yonente bi buñ ne ko kii kan la xawma ko rek la ciy teg. wallaay du ko a wax mos. te bu ko xamul commencé nañ nag branché nag raakol yi ca safara andil ko ko ci biir bàmmeel bi mu koy tuuse ration mhm. bu xamee nag kan mooy jëmm jooju muy bàyyi Fatima ak Roqeya mhm. bàyyi Umu Kalsum bàyyi Zeynabu bàyyi Abdullahi Qasim bàyyi Ibrahim bi nga xamee ne tiitar la ci africain mhm. xam ñun africains yi yàlla daf ñoo cëral yonent bi ki mujjee gis ci doom dund moom ci doom bu góor lu mu dundul ak benn doomam bu góor ndax ñee ca bala ñuy am ñaari at génn nañ àddina ci am na ñaari at bay dugg ci ñetti at muy Ibrahim kooku yaayam africaine la Mariatul Qibtiya dëgg la bañ na ba boo ne Maria sax ñu bari xamuñ ko mais boo cee al Qibtiya rek ñoo xam ne kon kii égyptienne la du égyptienne nii nii de d'origine égyptienne la mu ngi mel ni tey ñu ne la foo dëkk nga ne man ab jolof jolof laa dañuy xam ne yow tu es un pur mm-hmm. alqibtiya boo ko déggee rek mooy ce sont les purs égyptiens mm-hmm. kon kooku boo amee kersa ci moom bàyyi ibrahima moomu rus nga mu ne la yàlla di def maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi mooy del dëggu amal kersa amul kóolute melal nii melal na le del muñ nga ne déedéet man dama ko fay teg yi jaar ci beneen yoon damay waxtaan ak benn prêtre ma ne ko jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam woote mhm. moom la Isa woote moom la Daawuda woote moom la Muusa woote tey ñoo waxtaan ci loolu xool nan lañ koy tënkee pour ñun ñëpp ñu mën a tegu ci yoon bii jóg mu ne ma Muhammad lu mu woote ma ne ko dëggu d'abord mhm. bul fen mukk looy wax nit na fekk na mu ci yow mm-hmm. yàlla nag mooy dogal après ma ne ko muy benn kersa nga am ko ak mbindeef yépp kóolute mm-hmm. ba ku la dénk doo ko trian ñëpp am ci yow kóolute mm-hmm. di ko limal jikko yi benn par benn benn par benn yaa mu ne ma li nit ku ko am euh, c'est un loolu ab prêtre moo mu ko wax hmm. cardinal la sax nga gis ne jikk yooyu la ñuy yonent bi jox ba kii nekk ci biti bokk la ñun diine sax nee na ku am yi kooku c'est un kon nit mënul am lu ëpp nekk jullit beneen mooy kersa envers toi hmm. et envers les personnes nit bu amee kersa ci boppam day am jomb jomb hmm. mag ñi dañ ñoo yoroon ci as day am lu muy jomb <clears throat> waaye léegi dangay gis ku fëgg dana ne man gor pur la te moom amul lu mu jomb mhm. mais du mhm. as gor day am lu muy jomb man day rus naa ñu fekk ma ci lii sayyidatuna Maryam mhm. ba mu juree Aïcha alayhi salaam mbokkam yi bi ñëwee ci moom lan lañ ko wax gàcceel nga ñu mhm. sa baay melutoon nii te sa ndey melutoon nii mhm. loolu mooy jomb jomb nga gisee kon ñi ñu jiitu sax dañoo amoon jomb jomb ba buñ lay xas sax ci loolu lañ lay xase sa baay nekkutoon nit ku bon sa yaay nekkutoon jigéen juy taxawaalu lii lañ waxoon Mariam mhm. kon nan nga mën fexe ba taxawaalu ba àndul ñu lii muskila <laughs> mu ne leen damaa woor joxeñ leen Isa mm-hmm. mu commencé wax ak ñoom man day jaamu yàlla la yàlla jox na ma téere digal na ma julli digal na ma woor fexe leen ngeen nekk ci commencé woote wa barran bi walidati ci kon jomb jomb boobu mm-hmm. bu ko nit amul rek na jàpp ni crise dugg na ko mm-hmm. te crise bii ko dugg gis nga crise des valeurs fu muy yóbbu ni rek mooy safara yàlla nañ ci yàlla mooy man kat rusutuma fen man rusutuma trian man euh, euh, du mhm. surtout def lu bon mais nit bu dee bëri surtout def lu bon mais safara la jëm. bu àndul ak ndimbalu yàlla. léegi ba léegi ci ci ci wàllu kersa boobu ma lay wax ni mu ni mu doonoon valeur bu am solo boo demee maam Cheikh El Hadj Mal. sax mu ciy wax ci yonent bi naan jàmmul xayaa yi. Mhm. nee na moom léppam kersa la woon jigéen sax jànq. dabu ko woon ci kersa. Mhm. ce qui veut dire que ni boo déggee kàddu googu jànq dafa mas de am kersa. mais man sama problème mooy léegi jànq ji amatuñu kersa. jeunes yépp même bu dul jànq tey ndaw amatuñu kersa. mais lan moo denc ci ñoom ba amatul am am am amatuñu kersa ak lan moo nekkoon ci jànq ji ba mu bañ daan am kersa te léegi loolu deñ ah, li tax mu dañ lu yomb wax la. Mhm. mooy jànq moo amatut. Mhm. jànq moo amatul parce que jànq bu góor am na jànq bu jigéen am na moo amatut ndax léegi xale bu góor bi lépp loo xamee ne dafa amoon euh, lien ak sëy dañ ko ko daan nëbb xale bu jigéen dañ ko ko daan nëbb di ko nëbb xale bu góor léegi occidentaux yi xamal ñu ne xale amatut Mm-hmm. lu ñu internet andil ñu ay sites yoo xamee ne boo demee lu ne nga fay gis mm-hmm. ki nga xamee ne dafa am fukki at mm-hmm. te waxtu ko neexee dugg ci site woo xamee ne surtout sëy la mais musiba am na dëgg la lu garaw kooku mënatul nekk jànq dangay gis koo xamee ni lim xam ci wàlluk sëy ndeyam xamu ko maamam xamu ko ba pare naan la man je suis vierge man mosuma am jëkkër mais c'est faux mooy li ma la wax léegi soo toogee ba sept heures ci ngoon ñu julli timis ba pare xale bu jigéen bi lonk saagam ne ko yaay maa ngi dem te ñëw mu ne ko bul guddee mais problème am na. wallaay cest à loolu mooy suñu problème mooy léegi barrage bi nga xamee ne ni da laa dem bay takk euh, euh, bañ koy bañ takk ko ba pare ñu yebal ko mu dem ci bàjjanam mu commencé ko jox ay cours mm-hmm. ni dañ daa dem ba mu toll ci war a takk soxna. bàyyee mu war ko woo ko commencé ko jox ay cours. Mm-hmm. innocent la xamu ci woon dara. jànq bu góor jànq bu jigéen moo daan am. bu moo daan am léegi nag lan moo am am 30 ans tële. Mm-hmm. wallaay ndax teel a caaxaan. am 30 ans tële. Mm-hmm. soo xoolee li gën a dox senegal li gën a dox Sénégal mm-hmm. mooy bu boo xamee tële lay faj. moo gën a dox Sénégal. mais y a problème. bu njëkk suñu maam yi dañu dem ba am juróom-ñett fukki at di mën am doom. li 40 mu naan la man doxatul mais y a un problème mm. li ko waral nag mooy loolu c'est-à-dire bi ñu tegoon suñ diggante mm. muy miiru kersa miiru jom miiru les valeurs miir boobu dañ koo daj. Mm. kum neex romb dem xale yi léegi di romb di dem rek di romb di dem jànq amatul benn waaye dafa ne man kuy tàkk sama doom bu ñëwee naan ma ndax jànq la du jànq mu ne dama lay dàq directement y a problème <laughs> ni la jëlee rek dem <laughs> rek dem loolu ci fekk muy noonu. Eh, ba léegi sama classe yi dañ koy naxee sax xale yu jigéen ñi. Mm-hmm. dañ naan la eh, mën nga ma jox sa bopp parce que dama lay takk. Mm-hmm. mais c'est pas sûr takkal. Mm-hmm. mu gën a gaaw oh, oh, oh, mais ils le font pas lan moo tax léegi tubaab yi man dama dem ba léegi Sénégal dama commencé di gis sax dëkkaale. bu baax. <laughs> dama waaru ci yàlla. tubaab yi moom dañ koo dagana Italie moom léegi dañ koo daganal dëkkaale dagan na ngeen am njaboot njaboot googu. dañ leen di considérer comme njaboot gu juddoo ci sëy mhm. droit bépp bu kee am ñoom dañ koy am. te mhm. loolu léegi lañ daganal fii. sëriñ bi dafa may nettali <laughs> dafa am euh, koo xamee ni judduwul woon ci yoon yàlla def mu nekk borom barke. Mhm. way juróom génn àddina mu ñëw pour jéem a pour ilimaan yi. pour ñu donn loo ko. <laughs> moom la muy la mu war a am sax ci li ñuy donn li mu bëgg a joxe moo ko ëpp. gars yi la ko non loolu di fi am. loolu mooy imam yooyu dañ leen préparé ba ñoom crise de valeurs nekkul ci ñoom. dëgg kenn mënu leen jënd. Euh, en tout cas daal al oustaz. problème la euh, jamono jiñ toll nii. inna allaha azza wa jalla xayyun satirun yuhibbu sitra wal xayaa. amatu fi. koo xamal lu lu lu bon di ko weer koo xamal lu ñaaw di ko weer koo xamal koo xamul sax di ko weer. crise yooyu. problème la mooy problème dangay bëgg a takk soxna tey man damay bëgg a takk soxna ma ñëw cees ñëw ci sa dëkkandoo yi neexawoo leen man la kii laa bëggoon dama bëggoon fii soxna da nga yii bu fa dugg ñii ni ma leen xamee. Mhm. boo fa duggee musiba def nga musiba. Mhm. et fekk nañ ñu baax lañu. Mhm. yow yaa am crise ba yóbboo ma ko à ma daw leen. te warul woon demee noonu. macha allah loolu loolu mooy moo may may laaj bi ma lay bëgg a laajaat. mooy dafa bokkoon ci ci valeur yi wax dëgg mhm. ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa tax ne aleykum bi sidqi fa innahu yahdi ila al birr wal birr yahdi ila al janna mhm. wa iyaakum wal kazib fa innahu yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an naar kon yonent bi dafa loolu dafa mas a am ci jullit moo tax bu ñu ko masaan a laaj sax ndax jullit lu ñu ko mas a wax mu ni jullit mën na ko def tuub waaye jullit dina wax lu dul dëgg mu ni déedéet te fii mu toll ñun dafa mel ni effet mode la quoi di wax lu dul dëgg valeur boobu ñu ñàkk lu mu jur. mooy valeur bi gën a am solo. Mm-hmm. mooy valeur bi gën a am solo. Mm-hmm. te jamono ji léegi dañ cee tardé. Mm-hmm. damay wax ne xadis bi nga wax léegi léegi. iyaakum wa sidq war nañ di ko firi. yow macha allah dama lay félicité. parce que ajjuma bi passé dañu toog kër ga. Euh, Serigne Bekkaay maa ngi koy nuyu de passage. muy wax ah, sa wax mu koy wax alxaaji Moustapha sëriñ bi mhm. moom ku ko xamul dégg na ko mhm. du wax ci bànneexu bakkanam mhm. mu ne al oustaz Abdoulaye Gaye de dama koy suivre déglu naa ko démb déglu ko tey ci xale yi may nawloo ci dëkk bi ci la bokk du lu naw <laughs> du wax bu naw cest man dama wax ne mag ñi kuñ dem bay suivre rek bàyyi nañ la xel waxuma nag déglu la dégluwaat la mhm. mu ne xale yi moom rek laa ciy déglu ndax njëriñ lay wax loolu vraiment maa ngi la ciy encouragé di ñaan nga wàlluñu ci nag waaw nga wàllu ñu ngi koy ziar bu baax suñu baay boobu macha allah euh, donc mhm. damay wax ne xadis boobu war nañ koy firi mhm. jullit mën naa njaaloo jullit bu sàggan lay tudd jullit mën naa sàcc jullit bu sàggan lay tuggud waaye jullit du fen dëgg la gisa waxtu yuñ toll nii bu fekkee nit da cee wax lu dul dëgg surtout subaar jotee dafa war a duggaat ci lislaam pour mën a julli parce que yonte bi dafa ne jullit du kàcc kon waxtu wu nit ki kàccee rek génn na ci daayira boobu nga xam ne mooy daayiratul muslimin lépp lu ab julli war a def rek moom bokkatut pour mu bokk dafa war a tuubaat dafa war a waxat baati seede yi ndax al muslimu laa yàgg si garaaw ngay <laughs> léegi nag ñun da ngay toog yor sa njàpp toog ci buntu jumaa ji wala ci grand place bi wala ci studio bi di wax naka sa dul noonu timis jot wala tàkkusaan nga ñëw taxaw ne allahu akbar commencé yu yow sa njàpp la yàqu na bu yàgg am nga leen loo war a lijjanti ci wax nga dëgg de gisa nit bu jàppoo <laughs> hmm. fen njàpp la toj na mm-hmm. parce que fen dafa bokk ci liy yàq njàpp mm-hmm. ndax yonti mu ne al muslimu laa yakzib ab jullit du kàcc mm-hmm. kon nit ki bu kàccee bokkatul ci diine na wuti fu mu kon bu tusubaat jotee mu kàcc bu tàkkusaan jotee dafa war a ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tuub bàkkaar ba mu defoon jàpp door a xool ndax la ca kanam dana baax. <laughs> macha allah mbokk yi kooku kooku lu lu leer la Haj Abdallah lool moom euh, bind boo leer nga ci joxe boo xamante ni ñun war nañ ko xool di wax dëgg ñàkk wax dëgg baaxul ba léegi ci valeur yooyu duma gisaat beneen mbir boo xam ne problème la mooy jub jub saxaaba yi masuule yi leen daan dénk seen responsabilité yi daaw ñu jël lu ñu moomul yonent yàlla Yuusuf gis nga ko bi muy laaj ministère. ij'alni ala khaza'ini al-ard inni hafidun alim jox ma le ministère de l'économie et des finances pour deux raisons jàng naa lu tax ma war a mën a ministère bi mais jub naa du ma sàcc alalu réew mi mais léegi jubadi googu dafa bari daal maanaam ñu dénk la loo moomul nga randal ca valeur boobu ak ni nit ñi daan jombe jël lu ñu moomul loolu looñ ci indi euh, dafay tiitar slogan bu bees la te musiba la mm-hmm. damay wax ne aaye boobu ci mm-hmm. yonent yàlla Yuusufa mm-hmm. président de la république yëpp dañ ko war a amee dëgg la euh, ca assemblée nationale mm-hmm. ñu bind ko mbind mu rëy teg ko ca ginnaaw président assemblée nationale soo duggee pale bu ñu ubbee bunt bi nga gis mu nekk bind mu rëy nekk fa lu tax man duma jàng droit nekk magistrat ñor ma dénk santé boo gisee mbind mi mu rëy danga naan ko ah li nga may dénk nii de jànguma ko mhm. te xaw ma ko mhm. te nga maa dénk justice bu gën a gaaw bu la ko dénkee nga yore ko bu la ko dénkul nga wàññeeku dem ub nekk ci sa cabinet mhm. waaye koo xamee ne agriculture la jàng ñu jox ko santé mais ñu dee ci réew mi moo leen rey ministre la sante docteur la war a tudd dañ naan docteur diw ñu ne kooku kan mooy ministre de la santé ministre de euh, de la justice da naan metre diw. dina yombal liggéey ba moom <laughs> loolu baax na ci moom. waaye boo nee euh, euh, docteur Abdoulaye Saïd Gueye. Mm-hmm. te jiite hôpital principal. Mm-hmm. bu Ndakaaru léegi moom lañ def ministre de la justice mais y a problème mm-hmm. mais kii garab la xam. léegi nan lay demee mooy moom day wëri ji avocat yi ci réew mi ñu ñëw jàppale ko mm-hmm. moom signature rek la fa nekkee mm-hmm. amul njëriñ moo tax gis nga euh, sang bi mm-hmm. suñ borom subhaanahu wa dafa am ñum tàgg yëgal leen nag ñu egg ci gëraatu yónente suñ maam Ibrahim yàlla ba muy wax bala muy wax ne yónente la dafa ne ku dëggu la siddiqan nabi gis nga martaba siddiqiya ku nekk da ko war a wër nar nañ laa jox loo attanul ne li mënuma ko attanuma ko du gàcce du uh-huh. ma fàttali émission tontu taxal bi mu njëkk def télé mm-hmm. directeur dafa woote di laaj ci eh, suñu biir kan moo ko mën a def gaa yi ne waaw mën nañ ko def waaye du nekk direct mm-hmm. ma ne ko DG man mën naa ko def ak direct waaw mm-hmm. ah, ñeme nga de ma ne ko waaw du gàcce ci tey al oustaz Abdoulaye Gaye wooma ne ma oustaz loo xam ci nit ku am nangam ak nangam defee ko nangam ma ne ko xaw ma ko mhm. ma ne ko man loolu du gàcce ci man ndax jànguma téere yëpp nisful ilmi la adri nisful ilmi la mhm. ne ma ah? ma ne ko ma ne ko man fi ma gën a amee point fort mooy laaj ma lu ma xamul mhm. dama sëñ bi ah, ma ne ko dimbali nga ma ndax jox nga ma darsu bu bees ndax li ma wétte woon mooy bi ma fi génn di ko gëstu ji ah émission bi di ñëw ma tontu ko <laughs> boo ko njëkkee xam am nga sama numéro nga woo ma jàngal ma ko cest foofu lañ war a tollu tey waaye ñu dénk la loo xamee leer na li xamoo ci dara nga war ko yore mais gàcce la mooy yowmal qiyaam bala ngaa jéggi siraat ñu war la koo laaj nga am problème li jënt ko fii te yonent bi dafa wax ne yàlla moo ko wax ci sourate Nisaa yi sura numéro 4 dafa ne wa man yuti allah wa rasulahu fa ulaika maa allazina anama allahu alayhim min wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa xasuna ulaika rafiqa 69 la ni saa xool marte bi yàlla dajale ñi dëggu ñi shahid ñu yiw ñi ñu ñëpp mu yéegal leen ci martaba nubuwa kon crise des valeurs ku jël yoonu njubadi moo koy tiitaroo waaye ku ju jël yoonu dëgg kooku du tiitaroo mu crise des valeurs doy na ba léegi ba léegi xaaj abdallah bay bàyyu ma foofu ndax li nga wax dafa am solo kenn ku ne jëlal la nga man mais dañu am problème dañu am problème mu nit dañ koy jox li mu man ba pare mu ñuy nax ci biir la mu man ndax man nga mu ko man waaw daa déggul ndax ndax ndax ndax jubadi boo doon dénk ñi nga xam ne ñoo yor ndomb tànk yi ak responsabilité yi di leen bàyyiloo xel seen diggante ak seen boroom ci lu ñu yor ak njub giñ ci war a doxal mu doon valeur boo xamante ni saxaaba yi dañ ko amoon am na dëkk boo xamante ni saxaaba ba fa doonoon gouverneur ba ñu ñëwee ba koy séddaleloo azaka moom dafa am ci azaka ja xaqan mais ñun fii loolu am loo leen di dénk ci loolu benn xadis kullukum raain wa kullukum masulun an raayatihi mhm. xadis bu ma tëlee lépp dëgg la yonent bi saa dafa ne mhm. kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la mhm. sàmm bu ne bala muy jéggi siraat dañ ko laaj lan la doom sàmm mu leer mhm. soo ko leeralul rek yaa ngi ci biir soo ko mënee leeral alhamdulilah moo tax sallallahu alayhi wa sallam mi gën ñëpp dafa ne yow yàlla yàlla nga ma dekkil ak ñi ñàkk ndax xam ne ni dërëm bu ne dana laaj foo ko jëlee ak foo ko dugal yi nga fi bàyyi. Mhm. ña ngi ko bàyyeeg ndax préparé nga leen. Mhm. yaa am problème boo bàyyee ay milliards bàyyi ay doom yu jubadi. Mhm. ñu lay tuuse ci bàkkaar yàlla ñu si yàlla musal. moo tax loolu la di dénk mooy kenn ku nekk ab sàmm la te sàmm bu nekk dañ koy laaj lam doom sàmm la mu jéggi siraat da nga da jéggi sax wax saxaaba Omar ibnu Khattab deuxième xalifu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woo Abdullah ibnu Omar ba mu ñëw nekk dégg naa yaa ngi def demande pour leb ci baytul maal pour def commerce mu ne mu ko ni ñuy lebalee nit ñi nag yow duñu la ko lebalee mm-hmm. ndax sa bàyyee xalifa mu ne ko duñ may lebalee mu ne gars dañ daan daal lebal ñu dem jaayi bu ñëwee indi bopp alal gi bénéfice bi ñu séddoo ko ak baytil maal mën ne ko waaye yow sa bénéfice ñetti yoon lañ koy xaaj ñaari dem baytil mal benn mi ngi jël ko ndax sa bàyyee ko géré fi léegi nan ngay def mooy da am bàyyi joo xamee ne moo géré alal gi nga ñëw di laaj mu signé la lii gouvernement bee la ko may lii maa la ko may lii maa la ko sarax lii maa la ko nangam naagam ëllëg kenn ku mën a jugé la ñuy wax dañ ko ko may mm-hmm. ndax nit ki liñ ko may dagan na waaye source ba moo daganut mm-hmm. baax ci sa alal ñeme sa ñeme sab derde loolu la wolof wax dama wax benn waaye ma ne ko mm-hmm. addina bi yëpp ku ñu fal nga am loo créé di ci dimbali nit ñi képp ku ñu fal am na loo créé loo xam ne nee nga loolu ndimbal la pour nit ñi moo xam kañ fala ko kerye moo xam jabarama ko créé. Mm. waaye dana am. Mm. waaye li ma jaaxal mooy <laughs> bu jëkkër ja wàccee rek loolu dootoo ko dégg. mu mu mu mu mu naax saay kon loolu mooy dimbaleewul ci alalam. Mm. man tey su ma un milliard di ci dimbali ñu fal maa ngi ñàkk maa fal maa dimbali rek. Mm-hmm. waaye man <laughs> buñ suñ ma falee. sama jabar di dimbaliwaate mm-hmm. buñ ma folle sama jabar mm-hmm. dootuñ dégg waaw dootuñ dégg kum dimbali mm-hmm. mais y a un problème mooy lam doom joxe moomu ko te gis na alali mbooloo c'est très dangereux dëgg la yàlla ñu ci yàlla gis nga Macky Sall mii son excellence ñu ngi koy nuyu de passage parce que xam naa ne dalay lay parce que ku jub la ku buggu diine la kon jàpp naa ne amul benn émission diine bu mu dul suivre. Mhm. rawatina nag koo xamee ne xaaji Moustapha gi dafa ne kii dama koy déglu. yow man mhm. mhm. xiyaam. bala moo jéggi siraat. les seize millions sénégalais. kenn ku nekk dana taxaw ci kanamam mu lay wax moom. moo tax Omar ibnu Khattab bi mu toogee ci lalu deewam tëdd ci lalu deewam. woo njabootam gi ñu ñëw. mu leen lii nag di xilaafa gi bu ma leen ci dégg bu ma leen ci gis. yéen moom bokkoo leen ci ñi koy féetewoo leen jàkka ji jaamu yàlla ak di balu ak di jàngale yéen daal daara ji laa leen dénk waaye dénkuma leen lii mm-hmm. mu ne ko man rek doy naa ci yowmal xiyaam yàlla di ma xisaab mm-hmm. di ma laaj nan nga jiite woon jullit may wax waaye bu mu nekkati kenn ci sama xeet tey ku fi jógee bëgg nga sa doom remplacé la mooy famille boo xam ne yow ma xam ñëpp rek la ñuy teg di laaj par benn benn bu musiba di am ñoom ñëpp ay ànd dëkkaat biir safara ndeysaan yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla macha allah mbokk yi kon wax na ci masuuliya lu garaaw lu garaaw ak garaaw te jaram moytu parce que wax dëgg yàlla alalu mbooloo kenn du ca baax yor alal joo xam ne alalu mbooloo la lu lépp lépp ñëpp la yow nga bëgg koo féetewoo ak moo di ci def lu la neex ñu lay sant ak gërëm ci loo moom. oustaz yi sa doguma la. Uh-huh. a Cheikh Ahmada uh-huh. yal na yàlla yërëm ko amiin yaa dëkkaale ko ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam. ndeysaan. Mm. bi mu bis bi mu jëlee xilaafa bi. Mm-hmm. dafa woo doomu bàyyam yi ñëw toog. Mm-hmm. mu ne lenn laa leen ñaan. Mm-hmm. lii du chance du mérite. du martaba bu yokk. masuliya la. la ilaha illallah. wallahi alazim mhm. mu leen masuliya la. Mhm. li ma leen di ñaan maa ngi sukk ci seen ron. Mhm. ndax mag leen moo tax tey masuliya bi nekk sama loxo. dimbali leen ma lillahi wa rasulihi ak baay yi ñu bokk ngeen jàppale ma ci. lu leer la kooku rus na yenn lu leer la wax lu leer la wax waaye tey xoolal ci beneen wàll gi mhm. te leer na ma ne boo demee Tiwaawan looloo fa am mhm. boo demee Touba looloo am mhm. boo demee feneen looloo fa am waaye xoolal ci beneen wàll gi ku ñu fal ñu tëgg sabar dëgg la daf ko daf ko daf ko lu yéeme yéeme ku ne ku commencé naan la sa liggéeyu ndey ak sa aju baay ak sa barke loolu lu yéeme la ba léegi ba léegi rek ci valeur yi nga xam ni dafay amoon te ñàkk ko léegi mm. yërmande sallallahu alayhi wa sallam sa soppe bi yàlla bi mu koy tagg dafa ni laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufun rahimun kon ku bari woon yërmande la ñi mu njabootee woon ñëpp da leen a yërëmoon dafa amoon mm-hmm. yërmande ci ñoom valeur boobu est-ce que mu ngi fi fi ne néew na loolu mm-hmm. <laughs> ndax léegi li fi nekk oustaz mooy ki dalaa yàpp mm-hmm. kii doo moromam wan ko sa doole wan ko ne bokkoo leen judd wan ko doo moromam loolu moo fi nekk bu njëkk nit dalay tooñ nga mën koo faj baal ko ak teraanga sa dëkkandoo yàqal la wax la lu mu la warul la wax wala njabootam dal ci sa njaboot mu wóor na la sa benn xaacu ñoom ñoom ñu dem ci kaso bi mm-hmm. nga andi sa un million ne tee ngaa defaraat kër gi waay mm-hmm. ngi baalu àq njaboot gi moom yenn saa yi ñu tamponante waaye ñun buñ ci bokk mm-hmm. te tooñ de loolu moo nekkoon les valeurs boo xoolee dañ koy nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mos bokk ak Omar Ousmane ak Ali ak Aboubacar ndab mm-hmm. ñuy lekk gàmmukat yi dañ koy nettali lu bari la ca nekkoon ci ndawal bëriwut mm-hmm. ku ko daj rek parce que sa morom yonent bi da ko daj jàpp ne comme moom lañ fekk si mm-hmm. na ko jox abu bakrin moo ci gën a yeey Aboubacar daj ko pousse ko Omar Omar jël ko pousse ko Ousmane Ousmane jël ko pousse ko Aliin Ali jël ko ne ah lii de yonent bi rek suuf bi moom yonent bi rek puusaat ko ñu koy puusante ba lekk la nekkoon ca bool ba ndaw la des. loolu mooy ak baax wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bi dafa ne amul kenn ku ngëm yàllaam di mat lu lim bëggal boppam moom la bëggal moromam. man dañ ma nommé directeur général waaye xam naa ne post bi kat ni ma ci mel yow noonu daal la ko war a yéenee. ëllëg su ma fi jógee nga nekk fa dama la koy yéene yërmande li tax mu manqué mooy yonent bi dafa ne ku dul yërëm jaam yi yàlla du la yërëm boo gisee ay coronavirus ak ay feebar yoo xamee ne musoo ko dégg ci jamono di ñëw su ñàkk yërmande la yàlla du fi yónni mukk malaaka yi ñëw taxaw di guerre ak ñun jamais yàlla dafa lii euh, euh, malaaka yi ci armée suñu borom bi la bokk waaye am na yeneen arme yoo xamee ne moom la yónnee wa junuudan lam tarawha dëgg la du malaaka kese mhm. coronavirus bi ci la bokk mhm. demal ci dëkk yi takk leen masque nga gis bi yëpp génn xool Sénégal forum yaa ngi dàqante mhm. ak booy yi mais arme buy génn di dàq ñoo xam koo xamee ne gisuñu ko xamuñu ko xamuñ fu mu ne mais am problème buñ dellu woon ci yërmandante ci suñu biir nga tane ma yërëm ma kii tane kii yërëm ko kii tane yërëm ko léegi ñu am jàmm a cheikh Baye Tuuti Ñas dafa mës a wax wax bu am solo dernière gàmmoom gi mujjee def Italie mm-hmm. mu ne jullit yi azaka bi ñuy génnee mm-hmm. su doom delluwaat ci jullit yi ñaar ñetti at dootoo gis jullit bu ñàkk waaye dañuy génnee lépp dénk ko américain yi américains yi xool Sénégal ne ko lebal nañ la ci un milliard union européenne xool Sénégal ne ko lebal nañ la ci deux milliards bu ñëwee ci li ñu yore installé li soxla ne léegi dette bi effacé nañ ko mais du det fekk ni suñu alal la suñu parce que azaka benn waaye dafa ma ne man oustaz mooy ne ko mooy alal gu nekk ci sa biir alal te ñeme woo ko lekk ndax moomoo ko mhm. génnee rek waaw waaw cest li ñuy lebal ñoo ko moom suñu azaka la suñu xaalis la foofu lañ tollu tey mooy jullit ñi mànde bi ñu waroon a am ci seen biir dañ koy jël sànni ko teg ko à côté te loolu musiba la musiba la bi sallallahu alayhi wasallam dafa daa toog këram ñu togg añ defar ko ba mu baax ñaari ndongo ñëw ci bunt bi ne alaara bi naanaan <laughs> wala sarx añ mhm. yonent bi ne jox leen ko bool bi ñu jël jox ko bool bi timis jot mu ne Aïcha mu ne ko ah bool ba kat joxe woon nga ko te moom la ñu waroon a ndogoo dara nekk fi mu continuer woor ci ëllëg si ñu defaraat ba mu baax kenn ñëw ne sarax añ mun na jox leen ko bool bi mu continuer ñetti fan di ko woor ba Aïcha dem ci Ousmane ne ko sa waa ji nag bu bëggee dee bum ñu rey ñun mënatuñ ko mënatuñu ndeysaan Mhm. cest à loolu moo nekkoon yërmande nga gis yërmande bi crise des valeurs oustaz baaxul non kenn mun kenn mënul jeexal mbokk yi xam boo xoolee hmm? saxaaba yi hmm? biñ njëkkee euh, muhajirin biñ jógee màkka ñëw madinatul munawara hmm? dañuy ñëw yow nga jógee màkka ñëw ma jógee màkka ñëw ñu fekk fi sa ñaari technicien yi ñoom ku nekk am na ñaari soxna pour ñun ñu mën ñoo jox famille ku nekk day fase kenn ëffal ñu pour ñu takk ko mhm. te dañuy xool ka ca gën a nekk ndaw gën caa rafet ñu fase ko ndax nga bëgg ko yow mhm. loolu la Jibi Jàllo du ko defal kenn <laughs> muy musiba maa la xalaatu ko sax ñu koy moom day seet que mu doyaloon ko ñaaw ko rek ni la tee ngaa jël kii rek <laughs> loolu moo nekkoon yërmande bi macha allah moo nekkoon yërmande mais xaaj xaaj waxtaan bi li ma waxoon rek dama ni ko woon tey dañ ko def waxtaanu daara rek dañuy toog rek di waxtaan di jël ci jikko yi rek di ciy waxtaan gis nga dawal nañ une heure de temps mais yëguñu ko sax <laughs> ndax ndax solo si nekk ci waxtaan bi mais xaj boo doon boo doon tàggoo looy nan tàggoo. que yal na la yàlla dimbali. Mm-hmm. parce que référence nga. Euh, dafa am ci doomi réew mi. Mm-hmm. ñoo xamee ne la yonent bi waxoon. Mm-hmm. yàlla waxu ci alxuraan. ñoo xamee ne njaay ak njënd këfu leen. immeuble këfu leen. am alal gu bari këfu leen. leen këf mooy ku leen gën a ragal yàlla. leen këf mooy. man kat sama darsu suba bi war naa kaa fexe ba Sénégalais yi dégg ko ndax ñu tegu ci yoon bu jub te ci nga bokk ndax ku sëriñ bi wax ne kii dama koy déglu. man nag damay koy déglu nag léegi. Euh, vraiment xaw ma ci yow mais man ci man tiitar la vraiment tiitar bu mag la euh, ne diw kat sama bàyyi nee na da koy déglu. ki ñuy déglu bu demee ba am ku muy déglu mais kooku war nañ ko xoolaat kon yàlla na yàlla guddal sa fan euh, may la wér yàggal la fi ci kanamu njaboot gi euh, di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala dëgg yàlla nay sax di nekk dëgg démb dama ko benn borom taximaan ma ne ko lu bon ëpp fi lu baax a fi ëpp waaye lu bon lañ fësal dëgg la tey boo demoon ci daara tey sa daara yow boo ko doon utal sponsor doo ko am waaye tey boo fi bëggoon tëgg soo en soo bis dañ ko tudd xam nga soo boo ko bëggoon tëgg woo musiciens yi ñu ñëw. Mm-hmm. booy uti sponsor di koy am. Mm-hmm. boo leen utiwul sax ñu ñëw. waaw <laughs> ñëw mm-hmm. donc kon yàlla na yàlla def dëgg. mu féetee kaw. amiin yi nekk dëgg. di la gërëm bu baax di sant ñëpp di sant euh, waa Caaroy. dëgg falaa juddoo falaa yoroo falaa màggee falaa jàngee. Eh waaye di sant waa Caareen. Caareen di dëkk boo xamee ne mooy suñu dëkku cosaan. Sëriñ Ba. ganee fa àddina mm. su ma way jublu jigéen ganee fa àddina mm. samay mag ganee fa àddina mm. kon dëkk bu may tiitar loolu la dëkk boo xamee ne maam Cheikh Sidi Alhaji Malick jàng na fa alxuraan du dëkk bu ndaw mm-hmm. moo tax ñoom dañuy wax ne ñun seen i sëriñ lañu waaye ñoom ñooy sëriñ si nag voilà ñoom ñooy sëriñ si wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum tout cas ñun dey bég nañu ndax xam na ni du am njot moo la fi indi xam nañ sa emploi temps sa calendrier li la dese ci ay fan ci réew mi sax ngir nga dellu bareetul ndax responsabilité yi lay xaar koo xam ne jamono yi nga xamante ni corona ba mu ngay metti lool ca ca Europe ca Italie moom bokk na ci ñi néew wala kenn ku deno mayoon nañ ko possibilité muy génn di taxawu nit ñi ku fa ñàkk sa bakkan waxuma la sax Sénégal di africain foo mën a bokk mu def ci taxawaay macha allah ak yeneen ak yeneen xam ngeen ni moos fii rek la ko suñu jigéen Adja Mbaye invité woon dégg nañ téléphone yi li ñu doon wax ci moom kon amoo jot kon boo bàyyee sa lépp ñëw jox ñu lii dafay rëy macha allah ñuy ziare suñu bàyyi bàyyi Moustapha xam nga alaaj Moustapha moom kooku fierté Sénégal la mhm. dama wax nag nii yii ñun du ñu fayante bor ak moom moom mbégte la ci réew mi maa ngi ko doon wax nit ñi tey incha allah duñ ko bàyyi ñu ngi ci macha allah maag sama mbokk sama collaborateur Abdoulaye Sayer ak Ahmed Bekay macha mhm. allah kundul ñu ziar ko ñu ngi def lu ñu man ndax bëgg nañ indil leen waxtaanam ndax yéen ñëpp ko bëgg mhm. yàlla dogal nit ñi bëgg ko te te intellectuelle bi nekk ci moom boo nee alaaj Moustapha ñu ne borom yàlla rek a xam mhm. loolu du lu ndaw du lu mhm. ndaw mhm. kon moom macha allah ñu ngi koy béggee di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér mu ngi fi ànd ak mu ngi wér yàlla yàlla dolli wéram bu baax a baax yàlla bu ko dara dal na fi yàgg bu baax macha allah ak ay kemam macha allah xam ngeen dalal naa fii suñu bàyyi alxaaji Matar Seck mu defal ñu waxtaan noonu lañ fa yéenee mag ñooñu yëpp ñoon Baye Ousmane Gueye ak seeni kem Baye Ousmane Sarr dem ci ñoom ñu defal ñu waxtaan waaye daal bu du yàgg dara dina leen indil waxtaanu suñu Baye El Hadj Moustapha ngeen dolli ko mbégte macha allah ci moom ak taxawaay yàlla yàlla fayal ñu ko yàlla yàlla yàggal ko waaye suñu mag ñëpp yàlla yàlla fayal ñu leen yàggal seen taxawaay kontaan nañu ci turu kilifa gi macha allah di alhaaji Ibrahima Ndiaye mm. muy El Hadj Ndiaye ak Adja Mariam di Adja directrice ak ñi nga xam ne ñu ngi fii liggéeyee ñu ngi lay wax ni la jërëjëf kontaan nañu jërëjëf nag ñu laa wax lu ko ëpp di la ñaanal booy dellu subula salaami déhaban iyaban nga dellu ci jàmm te dinañ la fekk ba Italie incha allah defaat fa ak yow ak yeneen i émission macha allah mbokk yi émission baa ngoog mu raw mën nga koo dabwaat di nga ko seetaan samedi bu samedi booru huit heures huit heures trente dañ ko tegalaat macha allah muy seen émission bi ñu doon def yoon wi doon fi daral suñu mbokk suñu frère suñu lépp macha allah di haj Abdallah Seyr Guèye mu def fi waxtaan wu réew yi juzita xayran wa kufita charran wala laqayta fi ma baqayta darran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ah macha allah ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا